ci Agne ñu ngi lay nuyu yow yaay maire Sicap Liberté ñu lay dalal tey ci bés bi ñuy màggal journée mondiale du handicap ñu bëggoon a xam ndax Sénégal euh, dañ koy màggal. waaw bépp bés bu ñu jàngalee handicapé yi rek Sénégal da koy màggal. Mm-hmm. association yi dañ koy màggal. Mm-hmm. état bi daf koy màggal. partenaires yi dañ koy màggal. Mm-hmm. waaw parce que am na bés bi am na aussi journée internationale le 3 décembre yëpp la ñuy màggal. pour wane rek problème yi fu ñu toll. looloo tax ñu koy màggal. wax ci problème yooyu sax justement yan la yan la. xam nga suñu la nee handicap am na sa kër. Mhm. problème mu santé am foog nga faj faj bi dafa am njëg. Mhm. léeg-léeg ñu nga soxla appareil dafa am njëg mhm. waaye handicap ak njàng léeg-léeg am problème xale handicapé yi néew na ñi jàng wala jàng bu sori scolarité bi baaxul. formation professionnelle bi tamit yombul ndax fañ koy defee léeg-léeg du adapté mhm. te léeg-léeg li jaata yi ñuy laaj duñ ko am soo amul njàng nag mu sori amoo métier am liggéey ngay métti boo problème mu emploi aussi dafay posé wu boo tamit nekkin wi ci biir société bi dafa dafa doy waar mhm. ndaxte li ñuy wax les barrières architecturales soo duggee ci pour yéeg pour wàcc day métti soo nekkee ci mbedd bi pour dugg yenn kaar yi soo yoree fauteuil roulant doo ko mën donc yëpp dafa ay métit yoo xam ne handicapé yi ñu koy dund comme handicapé yi ñu ngi koy dund nag véritablement journée yi daf ci baax ñu koy fàttali mhm. loolu mooy sabab kon tey woote gu njiitu réew mi woote woon ca conseil des ministres bu le 23 septembre ne euh, jox dogal ministre de la fonction publique mu gën a xoolaat euh, lii di système euh, dossier recrutement secteur public ak parapublic ñi nga xam ne ñooy ay des personnes vivant avec un handicap ak diplômés surtout kon nan ngeen ko jàngatee. waaw baax na trop nit ñi ñu koy fàttali mais fàttali bi sax problème. Hmm. dafa am loi. bu ñu voté. loi bi tënk mhm. daal ne fonction publique suy jël téeméer bu ne muy jël fukk ak juróom dañ koy jàngale handicapé yi mais d' abord il faut handicapé yi am métier bi mhm. am niveau bi donc dañu war def formation bu adapté ñaareel bi président de la république li tax muy woote toujours dafa amul koo xam ne moo koy doxal mbir mi te loolu loi bi moo ko prévoir mhm. loi bi def ni nañu taxawal haute autorité du handicap mu nekk ci wetu président de la république mm-hmm. di ko xelal di ko doxal ci mbiru handicap comme loolu amul président day obligé tout le temps di fàttali te loolu c'est parce que fàttali bi ça veut dire que la mu laajoon defuñ ko. mais moom mi di fàttali du mooy exécutif bi wala. waaw waaw mais moom li mu yor dafa dafa dafa jéggi dayoo. kon daal yéen da ngeen bëgg bu kenn nekkati diggante euh, président ak euh, yéen. déedéet du ñun ñoo ko bëgg. d'accord loi bi moo ne. nañu taxawal la haute autorité. autorité kay day am. day am ci yeneen sax. au conseil day am ci yeneen. agence day am ci yeneen. loi bi moo ne. nañu def haute autorité mu taxawal handicapé yi ci peggal président de la république. Mhm. di leen doxal di doxal président de la république. donc autorité bi du am lenn lu mu laale tamit ak ministère yi nga xam ne yépp ëmb na euh, li jëm ci action sociale. Euh, handicap. Mhm. ministère yi yépp la laal. transport dañ ci am wàll. Mhm. éducation dañ ci am laal. l'armée léeg-léeg nga gis ay ay ay yu yu am ay laago. Euh, euh, euh, emploi dañ ci am c'est-à-dire que benn ministre mënul lijjanti loolu yëpp mhm. waaye autorité loolu mooy xëyam mooy gontam foofu la différence bi am mhm. tey jii loi d'orientation bi ngay bi nga tudd sànq tey ndax ñu koy jëfee ci mim réew moom laa la wax dama ne la mhm. koy jëfee xaw ko waaye wàll woowu joxewuñ ko d'accord nga doon tamit jëfewuñu wàll woowu loolu tax ñuy fàttali toujours que war nañu jël emploi que war nañu jàngal handicapé yi mais tey rek jot naa benn xale handicapé xel mi moo màccul mu war a jàngi ñu koy fayeku deux cent cinquante mille francs par mois loolu benn waajur moo ko am. yow yaa jiite euh, Handi Sport tey jii tamit ndax mën nañoo xam seen i jafe-jafe. waaw mooy jafe-jafe sportif yi rek. Mhm. dem jàmmaarloo jéem a fexe ba am li wut. Mhm. actuellement. ñun suñu suñu suñu fédération am nañu trois athlètes yu qualifiés pour les Jeux paralympiques. Mhm. loolu li mu laaj nag mooy ñu tàggat leen pour ñu wuti médaille waaye li mu laaj aussi. Mhm. mooy ñu mettre en disposition des moyens pour ñu wuti yeneen qualifiés parce que suñu objectif mooy am dix à quinze qualifiés. Mhm. loolu na ay moyens la laaj en dehors nag maintenant de la massification de la pratique sportive parce que en tout cas liy liggéeyam mooy fexe le droit au sport. Mhm. nekk une réalité chez les personnes âgées. Mhm. nga doon tamit homme politique euh, yor benn diwaan doon maire diwaan euh, ñuy waajal ay élection donte ñi ñaa ngi laam-laame ndax date bi moom la wala du moom ndax mën nañoo xaarandi candidature Santy Agne. date bi am na. mën nañu xaarandi candidature euh, ca mairie Sicap Liberté bu Santy Agne. bu bu jotee rek di ngeen dégg. <laughs> Uh-huh. mooy liggéeyal Sicap. su ma paree. Mhm. ma def bilan. sama bilan dama koy def sànq dàng. Mhm. lu ci war a jot jot ci. Mhm. bu boobaa nag la ca des ko moom. ci kaw liggéey googule sax ci mbas lañ ne euh, mën nañoo ne gënoon na tar euh, fii euh, ay weer yu ñu yu ñu yu ñu wees nan ngeen def ngir mën a survenir. waaw ñun nag si daan ak wax dëgg yàlla bokkuñu ci mbas mi. la am dinay tooy. dina am kon ñu tooy mais nag bokkuñu ci mbas mi wax dëgg yàlla ñu sante ko yàlla. Mhm. bokk leen donte limu ñu leen mais du ñàkk mu am euh, ay gàllankoor ci koom-koom bi parce que la laal. waaw koom-koom bi moom gàllankoor yi bari na trop. Mhm. ndaxte ku ne xam na ne. Mhm. ku ne xam na ne. maire yi. état bi moo leen di jox. ñu wut partenariat. liggéey tamit euh, ci taxi. Mhm. Sénégal yi nag ñoo sonn ñi doon ñi doon fay tax. Mhm. ñoo fayatul tax. Mhm. parce que ñu ci bari liggéey bi li ñuy wax ne les les at les les guddi gi. ñu doon liggéey guddi gi liggéeyatuñu woon doon ñu doon fay tax ñu bari ñu ngi nekkoon sur la voie doon fay tax fay woon tax. te moo ne dañu ne commune yi nañu dimbali askan wi mhm. ci ceeb ci diwlin ci nangam nangam ci ay masque ci ay produits détergents loolu yëpp ñu war taxaw taxaw ci li ñu war a taxaw waaye nag lañ daan am dafa wàññeeku. dëgg la euh, tey tamit député nga euh, lii ci mbas mi gis nañ comité de suivi liggéey gim ci def waaye assemblée euh, dégguñu leen benn yoon. waa assemblée nag bu ngeen war a dégg rek di ngeen leen dégg. Ah. waaw ku ci nekk da nga am sa rôle. dëgg o dafa am ay corps de contrôle des corps de contrôle de l' état. Mhm. am une organisation bu ñu pour mu suivre mbiru ceeb beeg yooyu. Mhm. assemblée moom liggéeyam c' est à longueur d' année waaye du liggéey rek sur l' émotion ah lii rek atte nañu oote déedéet déedéet ak mu jot. Mhm. lii gouvernement bi liggéey dañ koy càmbar. dañuy wax jox li ñuy wax la loi de règlement. nañu. la ngeen voté woon daaw lii lañ ci ko. Mhm. waaye loolu dafa jotagul. des foofu ba tey wax ci euh, li nga xam ne mooy inondation yi atum ren euh, déggaat nañ ko gannaaw ay at bañ ko déggul tey euh, PDS ñoo ngi ñaax ñu daal di saytuwaat ministre ya nga xam ne jot nañoo dugal seen loxo ci plan décennal bi yow tey lan mooy sa position ci mbir moomu. état bi moom. Hmm. am na ay kuréel yoo xam ne. saytu ak càmbar rek la ñu fi teye. ah mais assemblée tamit war na mën a doon taxawaayam. waaw. Mhm. bu baax sax waaye ca cappaandaw la bés bu njaagee. kon daal pour yow bu ma la déggee ngay wax faw dix yi mat. nit ñaa ngi faj mbas mi. li ñu def liggéey bu dara jarul. bu mhm. da ngay bàyyi nit ki mu liggéey ba li mu liggéey ba pare na nga woo ko. kon daal dix yi faw mu mat ngeen soog a xool évaluer. waxuma loolu dama ne. Hmm. ku may dix ans. wa hmm. war na boo koy bilan nga xaar dix jeex boo koy bilan waaye contrôle moom mun na am à mais à mi parcours. dégg nga ma ma ne à tout moment. d' accord. Euh, loi de finance euh, euh, maanaam loi bi euh, li jëm ci li nga xam ne mooy budget Sénégal dañ ko yokku atu deux mille vingt ndax jàpp nga ne Sénégal tey jii am na lu ko mën a may. xaalisam yokk ci wàllu budget boobu. man daal dama dégg ñu ne. Hmm. gouvernement bi arrêté na. Hmm. waaye bi mu arrêté joxuñ ma ko. Hmm. joxuñ ko assemblée. suñ ñu ko joxee ñun assemblée. ñooy woo ministre yi ñu ñëw. loolu mooy session budgétaire. pour mu ne lu ma ci wax dëgg yàlla damay yee fitna. d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Sanké le maire de Sicap Liberté.